bi nga duggee prison. Mm. fekk moment boobu avant cela nag vous étiez très puissant hein BMW euh, franchement cadre du du parti démocratique euh, sénégalais euh, am na sax benn moment ay coow yu amoon mais mais mais loolu dañ koy teg ay côté ba ñu wax fi ay waxu bague de jàmm yooyu euh, mais bi nga duggee prison. Mm. qu'est-ce que vous vous êtes dit. jamono jooju. Abdoulaye Wade qui m'a mis en prison, je ne le considère pas. Je ne considère pas qu'un être humain m'ait mis en prison. man yàlla moo fi yóbbu wa maa tashaa'uuna illaa an yashaa'a Allahu rabbul aalamiin li yàlla dégal moom mooy am merewuma ci kenn man maa mere sama bopp parce que xam naa man mystiquement ce que j'ai fait pour être là-bas. maa ngi mystiquement. oui wax mystiquement occulte d'une façon occulte man maa tooñ yàlla mu dugal ma fa. ci naka. du kooku moom sama sama privé privé la je sais que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire pour quelqu'un comme moi Dieu m'a puni et je l'ai accepté merci d'ailleurs de m'avoir puni pour yow punition divine la ah, oui c'est une punition divine vous demandez à Modibo quand on nous a dit il faut amener euh, euh, euh, armoire pour on vous le permet je dis Modibo ñu ni pour punir ñu frigo je dis non on a pris ndox naan boobu lañuy la ñuy duñu indi frigo duñu indi. kaso kaso Rebeuss non Rebeuss non man j'étais après après après nga dem fële. pavillon j'ai fait l'infirmerie dix jours. ah dix et puis je. après ngay soog a dem pavillon spécial. d'accord moo taxoon ñu lay permettre nga mun a andi frigo andi. loolu euh, la ñuy per mais j'étais avec Modibo dans la même chose. waaw Modibo donc on a refusé. de de ça parce que ñun xam nañ li ñu bëgg ñun ñu àll kat ñun duñu fi ñëw pour jël. climatique amoon nañu moyen bi ji fi indi frigo am nañu moyen bi non on n'aurait pas fait ce que Dieu veut de nous. d'accord on va le faire ba mu jëlee ñu fi. alors lu tax bi nga génnee nga wax euh, kàddu yi. parce que apparemment vous étiez très très remonté contre maître Abdoulaye Wade. oui j'étais très remonté contre parce que je lui ai donné ma vie jeunesse waxtu ñu waree affiché man maa daan dem guddi di jël sama xaalis di ci def. Mhm. beaucoup de gens ne comprenaient pas. Hein? Euh, à a âge parce que j'ai été consultant de gauche à droite, permettre d'avoir un peu de sous. Cette fois, il me dit il faut donner, les, les, les, même les autres peuvent l'attester, il faut donner pour l'étude à Tabaski et tout ensuite. Et tout ce qui était à Rebus, tiens-toi bien, à un moment donné, nous étions plus de 100 et quelques, ñëpp maa leen doon toggal kenn joxuma ñaar dërëm sama xaalis pour moi ku la defal loolu ak yeneen ak yeneen waroo ko yóbbu prison pour ak Macky Sall la wala ñëpp yow yóbbu prison bi moo la ci metti woon mais peut-être xamoon amoon nga ci benn part de de de responsabilité. aucune ban jàngat nga si def. aucune jàngat lu ma ci ci sa dund. waaw lu ñuy jàngat mooy je il a il a dit qu'il a fait des erreurs Abdoulaye Wade J'ai fait beaucoup d'articles là-dessus. Il a, fait, il a dit qu'il a fait des erreurs. À cette période je sortais pour dire qu'Ablaye Wade non lu yàq nga ko lu mais après bi mu ne je je j'ai fait beaucoup d'erreurs et je demande à ce qu'on me pardonne je le pardonne pour nous c'était pas un être humain pour nous c'était un ange. d'accord pour Macky comme pour moi on pensait que c'était un surhomme et que quelqu'un qui ne descend pas mais il nous a montré qu'il était un être